ñoom ngeen fi gis tey ñu teew fii ñu nekk ay kilifa jiite ay parti politique jiite ay mouvement politique wala ñu nekk ay personnalité yu bokk ci famille libérale wala ñu teewal fii ay kilifa ku demee ne que euh, président Macky Sall nga xam ne ministère fay moo fi teewal wala président Idrissa Seck nga xam ne ministre euh, madame Mariétou Dieng moo fi teewal ku mel ne président Pape Diop nga xam ne Moussa Diakhaté moo fi teewal wala président Ahmed Samuel Sarr nga xam ne Modou Mbaye moo fi teewal a Khadim Diouf ñi ci des ñëpp ñu ci bari dañu jiite ay parti jiite ay mouvement lim leen dina jafe mais ñun ñëpp li ñu bokk mooy benn wirdu euh, politique muy libéralisme ñu gis nañ ne ñi bokk ci njaboot googu dañu xaw a tasaaroo tuuti kenn ku nekk at yu bari yaa ngi ci dara topp sa yoonu bopp gaa kenn ku nekk yàlla mën a cee dimbale ci yoon yi nga xam ne moom nga jaar kenn ku nekk ci ñun ngi sant yàlla waaye ñu dem ba gis ne booloo mooy doole te booloo yi tamit mooy tax ñu gën a mën a wéyal suñuy principe ak suñuy valeur ndax kenn nattabliwul ne Sénégal su defaroo wala boog Sénégal bu ñu ko dee tudd gestion libéral moo tax président Abdoulaye Wade tàmbali ko président Macky Sall continue euh, foofu ñu toll nag ñu gis ni réew mi di doxe moo tax moo tax ñu bëgg wéer loolu mais ñu xam ne wéer loolu ci xajaloo wéer loolu te boolewuñu suñu doole dina jafe loolu moo tax ñu taxawal benn cadre cadre de concertation des libéraux de démocrates cadre boobu nag bu ñu wañu woon déjà parti yi nga xam ne ñoo ko ëmb frère Moussa Sy limal na leen ko léegi bari nañ trop mais dañuy xamal ñépp ne cadre bi ubbeeku na ci ñépp képp kuy personnalité libérale képp ku yore mouvement d'obédience libérale wala parti d'obédience libérale mën nga ñëw nga adhérer ci li nga xam ne mooy cadre bi tey nag xañ na ñi fi nekk ñii ñoom ñoo sos ñoom ñoo tàmbali ñoom ñoo sos yëf yi wante yëf yi ubbil nañ ko ñépp te ñu ngi woo ñépp ngir ñu ñëw wuy si ñu ci li nga xam ne moom lañu ñu sab li nga xam ne nag wax nañ ko léegi mooy bu ñu demee ba ci kanam daañu def benn séminaire d'ailleurs frère euh, Babacar Gueye moom la sas pour mu xalaat ci terme de référence su séminaire boobu buñ ca jógee nag du ñàkk suñ ci waxtaanee ba d'accord ci xañ na cadre bii ñu wutal ko tur xañ na cadre bii ñu structuré ko xañ na cadre bii ñu tëral ay principes bi nga xam ne moo koy doxal mais li am solo mooy euh, lépp lu nga xam ne état de droit la xamoon nag ne waa euh, bon lépp lu nga xam ne démocratie la liberté la état de droit la élection transparente la tolérance la cadre bi daf koy promouvoir lépp lu nga xam ne nag fondamentalisme religieux la wala euh, xajaloo wala populisme cadre bi daf koy xeex donc suñuy valeur la ñu am suñuy valeur fonk république moo ci jiitu fonk état droit moo ci jiitu fonk saa yi ci waree demee ñu dem ci élection yi pour kenn ku nekk soo dee takkaat ndombo tànk peuple sénégalais takkal la ko te mu ànd ci jàmm ànd ci salaam nekk débat d'idées nekk débat contradictoire kenn ku nekk mën a bàyyi sa morom wax li mu xalaat donte yow moom bokk leen bokk leen gis-gis donc loolu mooy li nga xam ne mooy mooy cadre bi boole famille libérale famille libéral bi nekk ci kujje gi ak famille libéral bi nekk ci mouvance présidentielle amul benn parti libéral moo xam na nga bokk ci kuje gi wala nga bokk ci mouvance présidentielle te mbir mi soxal moo tax bi ñu ko limee léegi gis ngeen fi ay parti politique yi mouvement yu bokk tey ci kuje gi am seen candidat gis ngeen fi ñu bokk ci mouvance présidentielle bi tamit am seen candidat waaye loolu joteewul ak dara ñun bëgg gi ñu bëgg boole suñu doole boole suñu bopp pour que libéralisme continuer di yore réew mi ba ca kanama kanama kanam libéralisme nag kenn mënu ko tudd Sénégal wala Afrique te doo tudd président Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo ko fi indi te boobaak léegi tamit moo ko yaata ci biir Afrique fu baree bari tamit moom moo fa yóbbu moo tax ñu koy rendre hommage te di ko ñaanal yàlla yokk fanam yokk wéram yaakaar naa daal ci gàttal euh, chers frères et sœurs chers camarades chers compagnons ñi fi nekk ñëpp loolu mooy li nga xam ne moom la ñu leen bëggoon tënkal ci lii nga xam ne moom la ñu taxawal tey kon lii tàmbali la daañu amaat yeneen daje. bu fekkee yëf yi leer na ñu yamale ko fii su fekkee am na benn ñaar ñetti question yu nga xam ne dafa jëm ci lii ngeen bañoo dugal ci nag yu nga xam ne euh, mënuñu caa tontu ndax wax nañ leen léegi ne cadre bi ñëpp fi nekk li ñu boole. du élection 2024 yi li ñu boole mooy famille libérale kon bu amee question bu nga xam ne dafa jëm ci kuréel gi mën nañ cee indi ay ay leeral bu naree jéggi foofu nag ngeen xamee ko noonu xam ne cadre bi li ko tax a mooy dajale njabootu njabootu libéral ci biir ci biir Sénégal jërë ngeen